alaaje Bambay sa baay. ci Serigne Sali. Serigne Sali Mbacke yaa gën. ci Serigne Sali. ay Mbacke ku la sopp daal di gën. kookoy Serigne Sali. ku la jooxi daa. faw mu dem jinaana. ci Serigne Sali. Serigne Sali Mbacke yaa xew. ci Serigne Sali. ay Mbacke nangu xewaale. ci Serigne Sali. ba boo lëggee. ba boo lëggee. ba boo lëggee. Ah! ba boo lëggee. Ah! ba boo lëggee. Ah! ba boo lëggee. ba bu ëllëgee ay Mbakke ñun ñëpp nu demal jara Serigne Salim Mbakke yaay waaja Serigne Salim Mbakke yaa waajal waaja ay baayu Seex Mustafa Saaliw Serigne Saaliw Mbakke Serigne Saaliw Mbakke Serigne Saaliw Mbakke Serigne Saaliw Mbakke jëriñ bi foo jëmati xam miskin bi nooy dafati xam nga laago ku lay sëriñ Saalihu Mbàkke ñibbi na. ci sëriñ Saalihu sëriñ Saalihu Mbàkke. dañuy tëju di la jooy. ci sëriñ Saalihu. yuuxu ba far xalambaan. ci sëriñ Saalihu. njanaaw yi sax ñu ngi jooy. ci sëriñ Saalihu sëriñ Saalihu Mbàkke ñibbi na. ci sëriñ Saalihu ci sëriñ Saalihu. Mbàkke. tarbiya yaa nu ko defal. ci sëriñ Saalihu ja yaa nu xamal yàlla yonent bi ca nii bégal. ay sëriñ saaliw mbàkke ku lay wutu te li taxawat jëy sëriñ saaliwa mbàkke sëriñ saaliwa mbàkke sëriñ saaliwa lu la neex laaj ci sëriñ saaliw lu lu la neex laaje bambay sa baay ci sëriñ saaliw sëriñ saaliw yaa gën ci sëriñ saaliw ay mbàkke ku la sopp di gën kookoy sëriñ saaliw ku la jooxi daal fawu mu dem jinaana ci sëriñ sa sëriñ Salim Mbakke yaa xew ci sëriñ sa ay Mbakke nangu xewaale ci sëriñ sa ba bol la jee ba bol la jee ba bol la jee ba bol la jee ba bol la jee bég naa loolu tey ñoo ngi fii ci Mermoz Kabas nag mooy restaurant bi nga xam ni Amadou Gueye 50 di kenn ci kër Serigne Saliou Sokhna Faty Diakhaté 28 décembre xel yëpp di dem ci doomi sëñ Bamba ji fi mujj ci doomi sëñ Bamba yi kooku mooy Cheikh Saliou Sokhna Faty Diakhaté mu ñibbi àjjana nag fin décembre buy jeex xel yëpp dem ci jëm jooju nga xamante ni moo ne woon jox leen man ndaw ñi ma jéem ci ñoom la sëñ Bamba daan def ci mag ñi waaye doomi sëñ Bamba lu mu jéem man ko kooku mooy Serigne Saliou ñoo ngi fii ci Mermoz li nga jël lépp nag avance la dañuy añ waaye Amadou Gueye fit sama waa ji nee na ma li fi war a xew ngoon dara tàmbalee gu ci dara xewagul pour mu leer tey nag li wër mus wala goxi dakaar yi ci ab Amadou Gueye nee leen Amadou Loul Serigne Saliou ñëw leen reer ak man. tapis vert kuy yeewoo ci ndakaaru boo fi mu sa ñëw dégg nga ko ay ndaw yi mucc ayib la Amadou Gueye fit tànn équipe boo xam ne yar lañ am ak teggin di la sëri na ko bëggee. doxe ak yar ak ki teggin man nan cee tudd sax ku mel ni awa moom nga xam ne léegi bi nga koy jël maa ngi koy séen mu ànd ak njaboot gi ay saa ngi noonu Amadou Gueye fitti daal Serigne Saliou la am Amadou Gueye fitti daal 28 décembre décembre ko ñor ñi ngi waaj danoo añ waaye dara xewagul bu ngoonee lépp dana leer Amadou Gueye fitti ku lebal Serigne Saliou mu fay la kenn du sonal sonal Serigne Saliou du ko rëcc yàlla na la bopp ñoo tey dañoo kontaan ndax tey dañuy fàttaliku Serigne Touba Cheikh Saliou Amadou Gueye Fifth def lu am solo di fàttaliku sëriñam ba ki xam ni moom la wóolu moom la yaakaar moom la doyloo kooku nag mooy bàyyi Cheikh Mourtala mi nga xam ne moom la yaakaar sëñ Saliou Mbacke mu xam mu ko defal ba lamente fu mu ñëwee mu fàttaliku sëriñ Saliou berne réew mépp nag lii nag ab tàmbali la ci bëccëg bi waaye bu guddee da nga gis lu nekk maam Thierno Amadou Fifth as gor la nit ku baax la ku bëgg sëriñ Saliou barki démb lan jógee la 5 septembre ndar mu def lu mel nii fàttaliku Seexul Xadim kenn ñaari rakka ya réew mépp ñëw waaye tey jii nag mu ne day fàttaliku sëriñam ba sëñ Tuubaa Seex Saaliw borom jurul ki nga xam ne sant ko war na koy jullit rawatina ko di murit moo gën ci nun xarit jaaraama Seexi Saaliw tarbiya moo ko salaat gàmm yi moo ko yeesalaat xéewal yi moo ko dolliwaat jaaraama Seexi Saaliw kooku lay fàttaliku sëñ Tuubaa Seex Saaliw Mbàkke kon teer nañu dem ba ci kanam tey ñëpp ñëw nañ maam Thierno waa Daaroo Ngok xam nga Amadou moom Serigne Saalu rek la bëgg waaw. ayca mi nii xam nañ ni tey amoo jot waaw maam Thierno tey jii la bisu sëñ Touba Cheikh Saliou Mbacké ñu jàkkaarloog jàmbaar ji nga xam ni sëñ Saliou la am. sëñ Saaliw la wóolu sëñ Saaliw la doyloo mu koy fàttaliku nag te sikkur saalin tan silu rahma fooy fàttali ko waaju baax xéwal yi day tuuru moom nag sëñ Saaliw la am barki démb leen jógee ndar 5 septembre mu def li war a def lépp ndar réew mi fekk si ko waaye tey jii bu la 28 ñëwee décembre xel yëpp ci Ahmadou lay nekk ndax moom sëñ Saaliw la bëgg bàyyi Cheikh Mourtala waaye tey jii gis ngeen ndekki li lu nekk def na ko añi lu nekk def ne ko waaye nitam ñëpp. ñëw nañ ko fàttali ko Serigne Saliou moom nag nee naa ko yaa war a sant yàlla ak yonen foo taxaw daa ngoo nga ne li Serigne Saliou fu ñu tuddal sëñ Saliou nañ la tuddu ndax wóolu ak yaakaar sëñ Saliou ko def ah sëñ Ahmadou xanaa tey kontaan nga de ndax amoo lu bis ta bokk yëpp ñëw nañ ànd koog yow. waaw kontaan nañu parce que bis bi moom depuis 2007 xam nañ ni ku nekk xam na ni Serigne Saliou sunu wasila sunu lépp. Mhm. ci la woon sunu borom. Mhm. liñ ci mën rek mooy saa yu jotee rek ñu fàttali si di si def lu rafet di si def ay berne di si jàng ay xasida di si wàcc ay kaamil di si jox nit ñi di leen bégal parce que sëñ bi loolu la bëggoon defal nit ñi teraanga bégal nit ñi donc ci loolu rek la ñu mën a def. kon bi ñu xëyee wàcce nañ fi kaamil yu bari ah def na lu neex Serigne Saliou Alaaji Medoune ne bi ñu xëyee alxuraan ju bàcc la bari lañ fi jàng te alxuraan ñëpp a xam diggante sëñ Saliou ak daara sëñ Saliou bi mu ne jox leen ma ndaw ñi. ndaw ñëpp la sol ci seen dënn yi alxuraan te alxuraan mooy waxe yàlla alxuraan mooy li neex Serigne Touba sëñ Saliou nag xam ngeen ni daara yooyu ngeen di dégg fu ne am na fa daara fukki daara ak juróom la sanc xel koom te bokkut tak yeneen daara yi moom sëñ Touba Cheikh Saliou moo tax bisam bi Ahmadou Gueye bi ñu xëyee ne alxuraan ju bari lan fi wàcce jàngal ko sëñ Saliou ñaan yàlla dolli ay leeram ci barke Rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu ne nag sëñ Saliou day ay xéewal jox ko jaami yàlla yi. jëru sëñ Tuubaa Seex Saaliw Mbàkke bi ah sëñ Ahmadou kon nii daal lañ koy toppoo ba kañ waaw ñun ñu ba bis bi jeex rek. ñu ba bis jeex rek ba bi jeex daal nii lañ koy toppoo lépp nag ñaanal ci sëñ Saaliw di sakku rek mbégteem sëriñ Saaliw di ko fàttali ko ànd ko jaamu yàlla yëpp ñu ah, ah, bég nañu lool ndax alaaji Medoune bi mu ñëwee ba léegi daanaka waa Touba fépp ñu ngi woote waaw délégation bi jóge Ndar sa waajur ñëw na fa lañ jëm nii ñëw na ak bokk yëpp. tey nag kontaan nañu ànd ak maam Thierno ak Abdou Salam ak Medoune booba ak léegi ñu ne fi ñun loo nekk nga. Eh, sant Serigne Saliou gi nag ah du tay rek la ko door yàgg na ci. ki muy sant nag moo ne woon jox ma ndaw ñi ma def ñoom la sëñ Bamba defoon ca mag ña donte yow moo ko ma barkeeloo ko Serigne Saliou soxna Fat Jaxate askan wi bokk sëñ Bamba ko ma woolu maam Thierno ba mu mu jox ko téeméer dërëm nguur ni ko utal ma mu ta lekk ma yàlla tey di ñaanuk Serigne Saliou ngay sant Serigne Saliou defee nii nga defee wàcc ma daan naa la wax bu nam la ku daanu kaw lay fete ko yàgg def yàgg koo man mbay sa baay. ci Serigne Sa. Serigne Saliou Mbacke yaa ci Serigne Sa. ay Mbacke ku la di gën. kookoy Serigne Saliou. ku la jooxi daa. mu dem jinaana. ci Serigne Sa. Serigne yaa xew. ci Serigne Sa. ay Mbacke ndax mu ci Serigne Sa. ba bu ëllëgee. ba bu ëllëgee. ba bu ëllëgee. Ah! ba bu ah! ba bu ëllëgee. Ah! ba bu ba bu ëllëgee ay Mbakke ñun ñëpp nu demal jara Serigne Salim Mbakke yaay waaja Serigne Salim Mbakke yaa waajal waaja ay baayu Seex Mustafa Saaliw Serigne Saaliw Mbakke Serigne Saaliw Mbakke Serigne Saaliw Mbakke Serigne Saaliw Mbakke jëriñ bi foo jëmati xam miskin bi nooy dafati xam nga laago ku lay sëriñ Saalihu Mbàkke ñibbi na. ci sëriñ Saalihu sëriñ Saalihu Mbàkke. dañuy tëju di jooy. yuuxu ba far xalambaan. ci sëriñ Saalihu. njanaa sax ñu ngi jooy. ci sëriñ Saalihu sëriñ Saalihu Mbàkke ñibbi na. ci sëriñ Saalihu ci sëriñ Mbàkke. tarbiya ko defal. ci sëriñ Saalihu Mbàkke. ku lay wutu te ci li taxawat. lu la neex laaj. sëriñ Saalihu. lu la neex laaj lu la neex laaje bambay sa baay ci sëriñ sa sëriñ Saaliw Mbàkke yaa gën ci sëriñ sa ay ku la sopp daal di gën kookoy sëriñ Saaliw ku la jooxitaa faw mu ci sëriñ sa sëriñ yaa xew ci sëriñ sa ay Mbàkke nag